les internautes étoile TV Sénégal ginnaaw buñ leen nuyoo jaajëfal leen bu baax a baax rafetlu tamit ànd bi ngeen ànd ak ñun saa su ne étoile TV nag di ànd ak yéen naqari waaye tamit di ànd ak yéen bànneexi tey nag ku dégg li ñuy waxee xam ni naqar ak tiis bu méttee méttee métti moo dal suñu confrère nga xamante ni mu ngi fii ci Tivaouane quartier bi ñu naan PAM station fii nekk ci Tivaouane près en face EDK bi rek waaye nag balaa ñuy sori dañ koy bàyyi rek mu nuyoo nuyoo gi nga xamante ne mooy internet Étoile TV Sénégal ñu daal di koy samp suñuy laaj salaamaaleykum sëñ bi maa lay jaar maa ngi si jàmm. alhamdulilah yaa si jàmm. bu baax baax. alhamdulilah euh, tey nag ñu nemmeeku woon euh, li nga xamante ni mooy jéye bi nga xamante ni am na fii ci PAM station sa kër est-ce que mën ngañ ci ñëwal. waaw dama ñib si jóge voyage egg si ba mu ñëwee ma dem si jumaa ji julli am fu ma jaar sama benn kër xarit daanaka fa laay yendu ba ci guddi gi ma ñëw sama kër wante ba ma ñëwee sama kër daal fekk naa fi li nga xam ne daal neexul ci xol waaw parce que ñëw naa fekk naa bépp bagage bi nekkoon ci kër gi daal dañoo dajji saal bi ubbi ñaari néeg yëpp ubbi waañ bi lépp li fi nga xam ne nekkoon na fi ci matériel wax dëgg fa nax yàlla kër gi dara nekkati fi damaa ñëw fekk ni yóbbu lépp waaw. Euh, ginnaaw ginnaaw bi ñu yóbboo lépp kër gi est-ce que am nañ fi fekkoon wala yow wala dañu dangaa tëjoon bunt bi dem. waaw ba mu ñëwee nag wax dëgg fa neex yàlla xale yi fi nekkoon ñoom nekkatuñ fi woon dañoo voyagé wante ba ñuy voyagé tàggu nañ ma ba ñu voyagé tamit wax dëgg fa neex yàlla tëjoon nañ bunt bi wante ba ñuy ñibsee daal wax dëgg fa neex yàlla nu ñuy ñëwee ci kër gi daal ba ñu ñëwee daal seen xol dafa jeex parce que fekkuñ fi benn bagage benn bagage fekkuñ ko fi. kon buñ la déggee bu baax yow da nga voyagé woon tëj kër gi dem. waaw man moom dama voyagé woon man moom daanaka yàgg naa àll dama voyagé woon wax dëgg fa na yàlla dama voyagé woon wax dëgg démb daal ba ma ñibbisee daal pour ñëw toog sama kër ni ma fekkee daal wax dëgg fa na yàlla neexul ci xol parce que dama mujj obligé sax sama benn kër xarit moom laa dem yee ay deux heures du matin fa laa mujj fanaan sama benn kër xarit laa mujj fanaan waaw euh, ginnaaw bi nga xamante ni def nañ saay-saay yi def nañu lii nga xamante ni moom lañ def danga daan faral di yàgg àll wala sa mooy sa première sortie bi nga xamante ni yàgg nga ko doon naa doon yàgg wante yàgg bii moom dafa wut yàgg yi njëkk yi parce que daanaka bii moom mun naa ne def naa six mois àll def naa six àll wante bett na ma daal parce que doonul li nga xam ne daal mos naa koo xalaat waaw parce que yàgg naa dëkk te mosuma arrivé wante tey mun naa ne samay dëkkandoo sax tey boo leen lii ni ma ni ma dalee ñoom mos a dalee noonu waaw mos leen a dalee noonu. alors li nga xamanteni peut-être mooy PAM station li nga xamante moo nekk fii ci euh, en face edeka ku ne xam na ni peut-être koñ bi xaw na wéet est-ce que kër gi amoon na sécurité. waaw kër gi am na sécurité am na sécurité parce que caméra bi ci buntu kër yi sax déjà dañ ko dagg. amoon na caméra. am na ñaari buntu kër yi bu côté boo mënut a jógee caméra yi dañ la doon jël dañoo yóbbu appareil caméra bi dañ ko dagg yóbbu appareil bi bët yi kese lañ fa bàyyi boo taxawoon ci buntu kër yi boo xoolee da ngay gis dindi benn projecteur bi yóbbu ko benn projecteur bi sax dañoo dagg fil bi. ak caméra bi appareil bi àndoon ak caméra bi si télé bi tamit lépp dañ ko jël yóbbu ko waaw. Euh, kon est-ce que ñooñu yàgg ñoo ñëw ci kër gi ou bien est euh, am na néew lu ñu xam li nga xam ne xam nañ ko ci kër mun na nekk parce que xel dafa saay-saay xel dafa saay-saay mun na nekk wante instant boo gisee man mënumaa sori mooy dafa nekk ci loxo yoon actuellement nii waaw. dem nga ci yoon dem naa ci yoon dugal na plainte bi def naa lépp. nii nii dañ ma joxaat convoqué waat 15 heures pour ma ñëw fa te bu ma fa demee 15 heures ñoom tamit dinañ ñëwaat ci kër gi daal di xool def seen constat lépp li nga xam ne jégowoon na fi ñoom dinañ bind lépp ci kàttanu yàlla parce que lu mu tombé ak àjjuma bi sax moo tax xëy ñu génn waaw. yow ban jour nga nemmeeku ni euh, daaj jàpp nga ni démb lañ ko daaj wala ba ci démb sa xel. non daaj bi mosuma koo xalaat ci kaw suuf mosuma xalaat ne man dinaa tukki ñëw fekk ñu daaj suñu kër. parce que doon woon li nga xam ne xalaatoon naa ko teewoon bi mosuma koo xalaat ci ko suuf parce que yàgg naa génn dem ñëw dafi fekk samay bagas? waaw génn naa 3 mois ba mu ñëwee dem fi fekk samay bagage lépp génn naa 4 mois ba mu ñëwee dem fi fekk samay bagage waaw wante bi 6 mois laa def àll wóorul sax tax 6 mois yi mot na ba mu ñëwee tamit lii laa fi fekk waaw euh, mën nañoo xam lan ak lan lañ fi jël waaw sama néeg amatul bagage te ku dégg néeg xam nga liy nekk ci néeg <laughs> salle bi <laughs> amatul bagage ku dégg salle xam nga liy nekk ci salle waaw déggu xale yi ku ko dégg tamit même chose waaj bi bàyyiwuñu fa dara kër gi daal bu bëggee dégg dara bàyyiwuñu fi benn bagage waaw lépp lañ yóbbu. nga ñëw limal quelque rek xam ni gars yi ko. waaw écran bi yóbbu nañ ko sama néeg yóbbu nañ ko bi ak lépp lu nekkoon ci néeg bi matelas sax bàyyiwuñ ko fa waañ bi tamit benn ndab bàyyiwuñ ko fa salle bi tamit amul lenn lu ñu fi bàyyi. commandant lañ fa bàyyi ak si jaadu ak benn photo sëñ Babacar loolu lañ fa bàyyi ak foto sëñ Abdou ak benn foto maa Abdou loolu moo des si kër gi si bagage. ok kon bàyyi nañ photo sëriñ yi ko fa. waaw wante <laughs> photo sëriñ yi nag <laughs> dañuy da yoo xam ne dañoo seer lool njëg ma seer tamit sama xol dañ ko yóbbu dañ ko yóbbu yóbbu nañ photo sëñ Babacar yóbbu nañ Mame Mansour yóbbu nañ El Hadj Malick yóbbu nañ beneen photo sëñ li ñu yóbbu yëpp bu ñu ma fi bàyyi loon fa tey rek dama sant yàlla fa rek moom ci metti leneen métti wu ma nag lu fa tey alors mën xaymaal environ ñaata lañu euh, environ euh, somme bi ñaata la war yi de. lépp en manière générale télé yeeg frigo yeeg yi ñu fi jot jël. xaalis la moom wax dëgg fa ne xaalis la parce que liñ fi jël duma la fen bëri la parce que boo demee bay jënd benn cadre bu nekk cinq cent mille boo demee bay jënd benn cadre bu nekk rek 600000 ah kon nga xam ne yóbbu nañ xaalis si kër. cadre photo foto yi boo demee kër Diop si ka photo yooyu nga fay fekk mu def si këram ñoo bokk kenn ku ko liggéey ñun ñaar. alors lan ngay man message ngay lancé wala euh, avant lool sax est-ce que dem nga police. waaw dem naa police ba ma ñëwee ba ma xoolee kër gi fekk ma fi dara su guddi gi si tàng tàng bi laa daw police. lan nga fa jëlee. waaw gindi nañ lépp. lépp lañ bind 15 heures lañ ma jox rendez-vous pour ma ñëw ànd ak ñoom ñu ñëwaat ci kër gi waaw police moom nee nañ fi ñëw waaw. mais amul benn exception boo def par rapport ak peut-être li fi daan ñëw. waa mënoo gisé kenn nii nii nii mënoo gisé kenn parce que xam ma ko fi dugg parce que bu fekkoon ne caméra yi yóbbu ñu appareil bi da nga mën a xam exact kan moo fi dugg bu fekkoon ne caméra bi dafa connecté woon sama téléphone dinaa xam tamit ñi fi dugg ñan lañ waaw problème foofu la nekk. wante comme nee na police ne day def enquête am su defee enquête am yàlla mën nañoo sàng sutura ñi fi dugg dinañ leen xam. mais jàpp nga ni daal ki fi ki fi ki fi dugg peut-être xamu fi. non ki fi moom yàlla ma yàlla baal nag wante xam na kër gi ku xam kër gi rek moo sañ def lii ku ko xamul mënu koo def. caméra yi yëpp yow li ko waxee kon ça veut dire ni kooku. xam na kër gi xam kër gi mënoo amoo sañ-sañu kër nit fekk fay caméra jël li ngay jël yóbbu démonté benn projecteur ba yóbbu télé bi ak yeneen ak yeneen yóbbaale appareil bi nga xam ne moom moo doon filmé xam nga loolu moom ko xamul nit mënoo koo def waaw te dèjà appareil bi nekkoon ci salle bi appareil bi sama néeg laa ko connecté woon appareil bi doon filmé sama néeg la nekkoon waaw appareil bi yoroon enregistrement caméra yi sama biir néeg la nekkoon wante lépp la ñu alors euh, ban message ngay lancé peut-être ñi nga xamante ne ñooy autorités yi wala ñi nga xamante ni peut-être ñoo yor kaaraange réew mi. ah xanaa ñu muñ rek ñu yor kaaraange réew mi tamit surtout Tivaouane war nañ di def patrouille guddi waaw yenn quartier yi nga xam ne ay doomu aadama dëkk nañ fa. su guddeetee nañu génne seen éléments yi ñu fay dawale seen oto di fa jaar waaw xëy na bu ñu demee ba ñu ràññee leen ci loolu ci kàttanu yàlla ak yonent bi xëy na yenn def-def yi dina wàññee ko bu baax ci biir Tiwaawan waaw. sa kàddu ñu jël lépp rek teg ci loxo yàlla waaw di ñaanal ñëpp tamit li ma dal nii bañ a dal kenn dal waaw. Mm, Alaaji Malick Diouf. Étoile TV moo la seet si woon ñu lay sant di la gërëm. waaw man tamit maa ngi leen di delloo lépp di leen sant bu baax a baax parce que seen liggéey rafet na seen taxawaay ci dëkk bi tamit wax dëgg fa na yàlla rafetlu nañ ko waaw ñu ngi ciy sant bu wër a wër.